professeur Moussa Diaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. nga nekk politologue waaye itam enseignant chercheur ca université Gaston Berger bu Saint-Louis. waaw. Euh, ñuy jëm ci jongante élection législative dimanche bile euh, lan nga jàpp ni moo di enjeu élection yi le euh, bu ñu xamee ni mooy élection bu mujj laataa ñuy dem ci jongante élection présidentielle atum 2024 Euh, enjeu enjeu élection législative yu bare la ah enjeu yu bare la euh, mais luñ ci mën a wax rek mooy euh, d'abord enjeu politique la yu ci bare enjeu politique la parce que élection yi dañuy dañu war a tabb euh, député yi duñu war a choisir député yi nga xam ne ñooy représenté citoyens yi euh, si si assemblée nationale nga xam ne assemblée nationale euh, quand même pilier la si si système politique sénégalais parce que mooy deuxième d'ailleurs base de de ci système institutionnel bu Sénégal après présidence bi assemblée la donc am na am na solo et puis ñuy ñuy choisir day fekk ni dégg ñooñu ñooy représenté citoyens yi euh, te am nañu ay fonction am nañu seen liggéey ba nga xam ni bu ñu leen sas euh, mooy d'abord ñu représenter citoyens yi ci ci assemblée euh, daal di di contrôler aussi gouvernement bi et puis aussi de saytu politique politique publique politique sectorielle yi ñuy def yi donc loolu am solo la ci ci ci ci seen liggéey euh, moo tax euh, pour ñu choisir leen il faut que ñu seet ñan nañu choisir parce que gis nañ législature bu génn bi am na ay difficultés yi ci amoon am na ay députés yi nga xam ni euh, sur le plan éthique respecté wu ñu woon dara waaw am na war nañu leen reprocher lu bare et puis euh, te ñoom sax nuñ nuñ ko waxee ñu ci bare dañuy dem di wax ni euh, ñoom euh, président bi rek lañ fi lañ fi nekkal lu mu leen wax ñu watee rek du ñuy gëm daal di wate waa duñu sax saytu la ñuy watali duñu seetlu loi yi nga xam ne ñu koy ñu koy wate ba donc moo tax ñu bare ci discours d'ailleurs leader yi du ñu wax ni ñu ñuy seetaat ñeen ñu tabañ ñi ñu ñu leen ñu nekk beaucoup plus exigeant ci ci ci critère choix yi c'est-à-dire que mu nekk ay député yi nga xam ni euh, euh, euh, citoyen lañ fi nekkoon nekkaluñ fi seen bopp wala nekkaluñ fi président de la République wala gouvernement Euh, citoyen mu la ñu fi nekkal te te te dañu war a remonter difficulté yi euh, yu nga xam ni euh, citoyen ñu ngi koy jànkonteel ci assemblée indi ko ci assemblée daal di interpeller gouvernement bi ministre yi nga xam ne ñoo yore secteur yooyu pour ñu indi ci ay saafara loolu ci seen rôle la bokk seen rôle aussi muy contrôle gouvernement suñu gisee la nga xam ni jaaduwul ñu interpeller gouvernement yi ñu koy interpeller ci am na ay ay ay dysfonctionnement yu am ci ci ci ci ci ci li ñuy gouverner te kenn wax ci te kenn dégguñu dégguñu ci député yi ñu wax ci dara wala ñu jël commission euh, euh, enquête euh, commission d'enquête parlementaire hmm. pour gën seet affaire yi nu mu demee loolu nag loolu manqué na lu bari en même en plus gis ñu ay député yi nga xam ne am na ay comportement xam ne àndawul ak moral àndawul ak éthique te ci seen comportement ci ci li ñuy doxalee ci say ci gis nañu ci ay mooy mooy question yi par exemple passeport diplomatique yi wala ay benn député xam ni euh, toomal nañ ko ci affaire blanchiment d' argent ak affaire yooyu hmm. euh, noonu nag euh, situation yooyu nag wa dañ ko war a saytu dañ ko war a nag dafa war a dakk te loolu lu koy dakkal mooy ñuy seetaat yeneen critères ñuy choisir ay députés yi mais lu qui est mooy ci campagne bi waxuñ ci lu bare waxuñ ci bare ci ci rôle député yi ak nu ñu leen di choisir en en même temps débat débat contradictoire amul presque amul woon am na dégg naa Euh, amoon na Ziguinchor euh, waaw au niveau du département mais au niveau national gisuñu ci dara te waroon nañu am ay débats contradictoires euh, ñu xam leader yu nekk coalition bu nekk lan la proposé lan mooy lan mooy programme am lan mooy continue programme ak lan lay proposé ci citoyen loolu nag lu am solo hmm. beneen enjeu bi mooy enjeu politique mooy mooy ainsi que ni assemblée euh, euh, lu am solo la parce que il faut nga am euh, majorité pour gouverner donc foofu la enjeu bi politique bi nekk diggante opposition ak majorité ku si nekk donc da ngay da ngay mobiliser wu pour convaincre citoyen pour ñu wateel la ndax nga am majorité parce que ku si am majorité ci nga mën a gouverner parce que ci nga ci boobu ñooy wate say loi te su fekkee am nga majorité absolue loi ba nga xam ne mën nga ko bëgg nga ko mu passé dañ koy wote am na ay loi yu bari gis nañ ko ci procédure d'urgence lañ ko fii dañ ko wote dañ ko wote euh, parce que na nga am majorité te dommage que ñu reproché aussi mooy majorité mécanique nga xam ni euh, député li ñu wote rek sans ñu xam lan mooy nekk ci biir loi bi discuter wuñ ci euh, amuñu compétence boobu pour def politique publique yi pour évaluer politique publique en tout cas de façon générale carence bu bare li ñu remarqué ci seen rôle et donc majorité bi am importance ku am majorité ci nga mën a gouverner confortablement moo yaakaar ni ñu am ñu nekk ci opposition euh, seen à la suite su seen seen mobilisation dañuy dañu ni ñoom mën nañu yaakaar nañu mën nañu imposer cohabitation c'est-à-dire que ñoom ñu am majorité absolue euh, majorité absolue soo ko amee nag euh, yow pratiquement yaay contrôler action gouvernement parce que euh, premier ministre sa rang lay jógee su fekkee am ga majorité absolue et en même temps soo amee majorité sa loi mooy jàll parce que sa loi sa say député ñooy wote loi yi donc ci nga mën a def ay proposition de loi mën ñu wax nañu ne su ñëwee daañu changer dan ko changer loi yu bare daañ ko dugal pour mën a alléger souffrance population yi euh, pour mën a euh, euh, def de telle sorte que ni système politique judiciaire ñu war di teqale c'est-à-dire maanaam séparation pouvoir parce que loolu jafe-jafe la ñu jànkonteel fii ci ci réew mi ci au niveau pratique donc séparation du pouvoir faire en sorte que ni mu am lisibilité ñu mën a saytu cohérence gouvernement bi lu muy doxale ak su fekkee ne am na ay jafe-jafe euh, ci ci gouvernance ñu jël ay commission euh, d'enquête yi nga xam ni du duñu saytu yooyu euh, loolu lu am solo la donc su fekkee ni cohabitation am na ça veut dire que ni il faut que ñu changer comportement politique mm-hmm. parce que il faut que ñu négocier président bi mënul jël ay ay décision mënul jël ay loi parce que du jàll il faut mu waxtaan ak nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi te donc beneen façon beneen pratique la ñuy defaat ci ci la ñuy doxalee Euh, euh, gouvernance bi parce que ñaari tête ñoo fa nekk euh, am na ku nekk ci bi am na ku nekk ci ci parlement bi Euh, euh, donc ñaar ñaari tetu euh, exécutif ak parlement bi bokkuñu su fekkee ne am nañu ma opposition am na majorité te foofu lu mu la cohabitation bi nekk. donc il faut que ñu waxtaan il faut que ñu discuter. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag beneen beneen système lay indi benn te te ñun habitué wuñ ci am dégg naa ñuy wax ni affaire blocage yooyu blocage mën na bañ a am ah. Mm-hmm. mën na bañ am c'est vrai que gis nañu réew souvent ñun duñu wax duñu duñu seet ci France parce que France amoon na fi ah, amoon na fi rek ni ñoom euh, stade bu ñu nekk ba euh, ñuy pratique seen comportement am nañu c'est des comportements euh, républicains ak démocratiques mais nag chez nous am nañu difficulté am nañu difficulté yooyu pour mën a intérioriser pratique yi ak principe démocratique yi kooku nag on sera su fekkee ni cohabitation am na il faut que il ñu changer attitude il faut que ñu accepter la contradiction mm. forcément mm. te nag beneen beneen beneen euh, beneen comportement lay indi mais du euh, forcément mu nekk blocage ah mën na bañ a nekk blocage te d'ailleurs foofu la ñu mën a waxtaanee parce que euh, pour ñu gouverner ensemble il faut que ñu waxtaan voilà mm. foofu la discussion war a am foofu le le échange war a am entre exécutif bi ak avec le parlement ak xam ni premier ministre mooy moo koy diriger ak yooyu. loolu loolu moo am. solo la. Mm-hmm. am na ñoo xam ne blocage mais yaakaaru mu am blocage systématique ah ça dépend parce que su fekkee ni ñoom euh, réew mi moo leen soxal euh, su fekkee ni état ñu bëgg mu fonctionner su fekkee ni Sénégal yi moo tax ñu ñu leen et donc daañu dem am am benn attitude ba xam ni euh, nguur gi a dox politique bi mën a dox pour ñu mën a améliorer conditions de vie population yi par gisuma ci benn difficulté euh, d'ailleurs nouvelle pratique lay doon et puis day changer comportement politique ñu gën a euh, respecter euh, des règles démocratiques mën a waxtaan mën a dialoguer pour trouver des consensus loolu am solo la mm-hmm. beneen enjeu bi c'est vrai que ñu ci bare daañu wax nañu ni daañu changer loi yi daañu dugal ay loi yu bees nga xam ne day am amélioration dañuy changer par exemple dañu alléger les charges sociales euh, faire en sorte que ni euh, euh, produit de première nécessité mu wàññeeku et donc daañu daañu def ay daañu jël ay lo ay loi yoo xam ne dana améliorer conditions de vie population et puis aussi am nañu wax ni ci leader yi ni ñoom itam daañu seet ni ressources yu fi nekk yi Euh, lu ñuy générer comme ressource daañu seet nan lañ koy répartir nan lañ koy séddalee de telle sorte que mu mën a améliorer conditions de vie parce que mën loo amee pétrole ak gaz euh, nekk ci ndóol kooku mënul nekk waaw euh, projet yi ñuy def li su fekkee ne loolu général ay ressources projet yi ñuy def yi day nekk projet yi nga xam ni day améliorer conditions de vie population yi mm-hmm. waaye duñ ko def ci ay euh, projet faramineux jël ay milliards def ko ay projet nga xam ne amul solo du jariñ réew yi parce que am na ay projet euh, prioritaire yu ñu xaar ci ñoom donc mm-hmm. enjeu yooyu ñoo ci nekk ma yaakaar ni nag élection yi élection yu am solo la ci ci encore daan dana régler question wu troisième mandat parce que su fekkee ni euh, majorité bi euh, amul amul amul amul amul euh, ay député yu yu yu xam dañ ko dañ ko jox majorité absolue alors beneen su ñu delloo ci su ñu nekk ci cohabitation problème problème troisième mandat dootu kenn dootu ko posé. parce que ce sera résolu loolu par exemple mënu mënu mënu mënu naviguer à contre courant mm-hmm. donc ma yaakaar ne rek Euh, am na ay solution yoo xam ni day génn ci loolu euh, day am conséquence yu fekkee ni euh, cohabitation am na ay conséquences yu bare lay am à tous les niveaux ma yaakaar ne na kon ñu ngi ci compétition électorale léegi nag citoyens yi ñoom ñooy décider en fonction des convictions yoo xam ne am nañ ko ci tel ou tel candidat ou tel ou tel coalition ñoom ñooy décider dañu yaakaar ne lu ñu bëgg rek mooy élection yi dañuy def ko ci ci dal mm-hmm. def ko ci transparence Euh, ñëpp gis ci seen ñëpp ñu doxal ko nga xam ne loolu la ko yoon santaane. Mhm. loolu la ko démocratie santaane loolu mooy indi jàmm ci réew mi. d'accord professeur tey euh, maître Abdoulaye Wade ancien président de la République euh, nekkoon tête de liste nationale nekk tête de national nationale wàllu Sénégal ñu ngi koy xaaral di tey ci ngoon jóge Paris ñëwam fii ci Ndakaaru ban impact la mun a am ci intercoalition yi ak wàllu. Euh, en tout cas euh, ñëw Ablaye Wade bon euh, Ablaye waad am na expérience mag la nag mag la waaye nag présence am am na Ablaye Wade dafa dafa am ñu am cofeel ci moom quelle que soit la situation et ñëwam nag day gën a conforter coalition bu mbokk bi parce que ñooñu daañu encore am espoir ña nga xam ne ñu ngi doon hésiter daañu gën mobiliser wu parce que Ablaye da ñëw na te dana waxante ak ñoom dañ leen wax ñu dem voté ji parce que loolu moo am solo euh, ma yaakaar ne na kooku atu lay doon euh, plus lay doon rek pour ci coalition bu mu nekk bi te dana indi ci euh, yokk gëm-gëmu ñeneen yi gën leen déterminé pour ñu dem voté ma yaakaar ne su leen Ablaye Wade waxaanteeg ñoom. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar tey est-ce que mën na gagné mën na gagné fi nga xam ne perton na ko ci élection locale yi nga xam ne moo jàll yu ci mel ni Mbacké Touba Ziguinchor Diourbel Dakar ak yeneen gox ndax na fa gagné. oui mais xam nga élection incertitude la. kenn mënul wax ni kii dafay gagné wala kii dafay perdre. Mhm. Euh, mais ma ngi dépendre ci mobilisation su fekkee mobilisation yooyu euh, convaincre nañu citoyens yi ñooñu daañu voté euh, dañuy gis aussi ne mobilisation opposition bi ci élection locale yi am na bii nga xam ne gagné na ko. te euh, bon defaat na mobilisation est-ce que dañ ko conserver wala du ko conserver loolu nag kan mënu ko mënu ko à l'avance mm. euh, amul benn prédiction boo xam ne mën nañ ko avancer parce que amuñu ay études scientifiques lu jëm ci état de l'opinion waa amul étude scientifique nga xam ne man nga mën nga ci sukkandiku euh, man na seet euh, saytu le Sénégal yi di voté ay interprétation rek la gars yi def am na ñuy wax ne ay vote rationnel ñeneen di wax ay ay vote affectif ak yooyu mais yooyu yëpp ay ay interprétation la euh, mais lu ma yaakaar rek mooy Euh, su fekkee mobilisation yi ñu gis yi yu am doole euh, ñooñu ñu mobiliser dem nañu wote euh, loolu mën na changer rapport de force yu ñëw yi. Mhm. professeur tey coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu ak yeneen coalition yi yu bokk ci opposition bi yan chance lañu am ngir ñu am majorité. ñeent chance ñu am pour ñu am mooy def nañu campagne ah. Mm-hmm. def nañu campagne mais vous savez ci euh, euh, ci opposition bi opposition bi ña euh, benn benn coalition bëri moo fa nekk yi ci des yi ay ay coalition yu ndaw lañu. Mm-hmm. te nag jubóowuñu si seen biir. su fekkoon ñu nekk benn lank alors le problème kenn du ko kenn du ko posé. Mm-hmm. mais jubóowuñu ci seen biir que gis ñi ay ay ay. ay attaques ñu ñuy def ci seen biir d'ailleurs moo taxoon Sonko di leen di poser question. Mm-hmm. Euh, di leen attaquer pour xam ban position la ñu nekk est-ce ci opposition la ñu nekk wala dañu nekk ci opposition biir opposition loolu nag problème la euh, parce que faut pa que ñu ñu jum ci seen adversaire comment euh, benn adversaire comment lu ñu am politiquement mooy mooy majorité bi ñu nag di jum parce que gis nañu souvent suñu inter suñu intervenir rek dañuy attaquer per et puis attaque personnelle la ñuy seet la ñuy wax te loolu nag warul. Euh, attaque personnelle yooyu du jur dara waaw du leen indil dara euh, fu fu enjeu bi nekk mooy débat d'idée hmm. ñoom lan la ñuy proposer comme alternative par rapport à la politique lan la ñuy proposer pour alléger les charges sociales lan la ñuy proposer pour améliorer les conditions de vie des populations wala pour yokk xëyu ndaw yi loolu ñu xaar wala wala création ay hôpitaux yooyu mën a mën a faj nit ñi loolu la ñu xaar ci ñoom mais pas ñuy attaquer personnellement di attaquer Sonko wala leneen wala ñeneen non non non je duñu euh, ñooñu euh, peut-être euh, dañu dañu jalousie moo fi indi ah politiquement yi am na loolu am rivalité ci ci réussite Sonko nu muy nu muy mobiliser parce que dafa am forte mobilisation des jeunes mm-hmm. mais cela veut pas dire que ni mobilisation des jeunes yooyu ça veut dire que que ça va se traduire dans la réalité ay vote donc lool ñu xaar justement si ça se traduit dans en vote ça veut dire que ni il aurait gagné il aurait relevé le défi mais loolu kooku beneen de manches chance mais dans tous les cas euh, lu ñu xaar ci ci opposition pour ñu ñu gagner def nañu mobilisation mais maintenant on va voir les yi ci élection yi nagam loolu dana dana indi euh, dana résultats yooyu daañu ko traduire dans les faits ci urne yi pour avoir euh, espérer quand même changer donne politique bi. parfait professeur Moussa merci. merci maa ngi leen di gërëm. waaw di fàttali politologue la politologue nga nekk itam enseignant chercheur ci université Gaston Berger bu Saint-Louis.